le ministre je vous Je féliciter n'ai pas eu l'occasion de le faire ci sa reconduction monsieur le ministre nous avons dañ un séminaire la commission des finances et ak euh, ministère des finances nous la commission on avait l'habitude de dire que l'agriculture est l'alternative pour un développement durable on avait l'habitude de dire que agriculture la am surtout ñun waa Sénégal on avait l'habitude de prier pour l'abondance des pluies parce que malheureusement ba léegi suñu agriculture dafa dépendre ci pluie yi nga xam ne maam la mu ngi ñu koy sarax mais monsieur le ministre bien que génnee ci séminaire bi kenn ku nekk ci ñun ak ni des finances expliqué ni nga nekk une pièce maîtresse de la relance économique ku nekk daf la ñaanal ñaanal la nga réussir yow ci sa bopp ñaanal la nga am kàttan ñaanal la nga réussir ci secteur bii ñu la jox mais ñaanal président mu am une politique volontariste pour que effectivement li ñu sas agriculture bi mu mën koo def mu mën lutter contre la pauvreté gannaaw bi mu jouer effectivement rôle boobu ci relance économique bi lutter contre l'immigration clandestine parce que nag gënu gëm ne mooy alternative bi il faut que ñu retourner à la terre nous avons ko ci emploi des jeunes yaakaar ko ci création de richesse ñu ni autosuffisance alimentaire mu indi sécurité alimentaire contribution au PIB secteur primaire bi presque moins la plus-value bi ak li nga xam nous la secteur secondaire parce que gëmuñu agriculture sans plus-value il faut que nous transformions. mais monsieur le ministre a un paradoxe bu doy waar bu ñu paradoxe bi que, man man Aïda 2005 laa jël un document jox ko président de la république alors premier ministre qui protection sociale boo xam ne concerné ak Souleymane Dene, ministre de l'Emploi. emploi nga la protection sociale intéressait le paysan mais on dirait que le paysan est laissé à lui-même ak lu de da a wax dañu am problème D'ailleurs, aujourd'hui ñi taxaw fii di la wax problème mu paysan wu euh, de quoi waalo mais dafa nekk lu douloureux ma aw passage nag nga am nag surtout waa Sayedi ay collaborateurs yu luwaayoo parce que yàlla rek moo dul juum mais bi nga juumee ci RFM annoncé 200 hectares yi alors que benn nit rek am na lu trois 300 hectares ñoom dañu monter au noo di wax ak nit ñi samay mbokk la ñu demal koy seedeel parce que loolu luwaayute moo ko mën parce que coow li bari woon na kon monsieur le ministre ma jàpp ne tey su fekkee ni dañu bëgg a jouer loo agriculture loolu lan moo tax agriculteurs yi di jaayee 300. ñuy jël prix d'arachide bi di ko def 200. man paysans yi aujourd'hui itam am problème moom dinaa dellu prix arachide parce que dama ci am sama gis-gis euh, agriculteurs am problème accès à la terre bi agrobusiness baa ngi bëgg rey yi ñun yi la ma yow ministre de l'agriculture ñu yaakaar agriculture te euh, foncier bi ma bëggoon ngeen jël ci ay mesure pour clé bala may ñëw ci DPV ma ñëw ci problème mu semence problème mu njaayu gerte bi monsieur le ministre état bi dafay perdre ci loolu état bi bu dee dafay subventionné en euh, euh, semence bu dee day subventionné engrais su fekkee ne day joxe machine te loolu yëpp état di ko def te état mënul am priorité ci jënd bi su ñu defee loolu yëpp ba pare chinois bi jënd trois cent mille bàyyi état bi. man loolu naqari na ma torop naqari na ma parce que moom dara fekk ko ci investirul investirul ci mbay mi donc luñ ko jaayee mën na koo jënd investissement boobu nag di di ñu ñu di ko investir noonu il est vrai que ñun ñëpp ay libéraux lañu te d'accord nañ ci mais nag wax dëgg yàlla waroon nañu wut beneen mécanisme boo xam ne dinañ ko encadrer ba mu kii monsieur ministre rôle de la DPV surtout au Waalo soxla nañ fa DPV torop C'est la zone nord de si siège u SILS en matière de lutte contre la protection des végétaux euh, parce que l'encadrement, bi nga xam ne soxla le ko te acteurs yi dañuy encadrer ATA agent technique d'agriculture agronome acteurs yépp ñu sur le terrain bi en passant par les conducteurs et les VTA Nous avons dañu sur le terrain di encadrement boobu soxla nañ ko ñun de Bambey am nañ ko parce que les étudiants de l'ISFAR ñu ngi ñuy encadrer